bëgg naa la. maa ngi yaay tey andi nga Sarak noo ko gisee. waaw am yaakaar rek parce que xale boo gëmee sport am yar am tegil am kilifa loo am nga ne sama waa kër wax dëgg yàlla war nañu mën a am yaakaar ci yow te loolu mooy man miinu ma lool sama regroupement bi ma doon def kër Moustapha Gueye laa nekk moom 3 mois ci kër xam ci moom lu bari waaye yal ko yàlla lafal cat waaw nangu na entraînement gëm na boppam te am na yërmande ci famem waaw kon loolu dafa am solo xam tax a jóg xam li la laa te yàggamte la daf may fàttali rek samay début dama nekk waxambaane kër gi di saxaar su ma yéexee mu tàkk moo tax daanu ma yenn daanu ma fanaanal. da nga ci daan nekk rek. ah ci daan nekk rek. non dama dama dama nekk waxambaane kër gi di saxaar su ma yéexee mu tàkk moo tax xaw ma woon sax foofu foofu dama ko doon dégg rek su ma déggoon ne diw day foofu dama yaakaar kooku wérul wala xamul lu ko tax a jóg wala amul ay responsabilité bët yooyu laa koy xoolee waaw. barki démb dama dem seeti Boy Niang dégg nga lim la wax mu ne Gris Bordeaux troisième as la bu demee Sénélec du la. tooñkat la xam nga mënu géwél day sox xorom armée li laa ko fay daje dese ba ñuy du sa du yaaykat yi boromam yàgg na ma peese la nante la quoi dama peese ma ci gore bu nekk damay xool ci biir bët nii dama jëm a coytu naan ma ma ne ko booy am na saa yu morom yu ma doon wax pare woo pare woo mais bu ñu defee runkunkung fa lañ jógee ba léegi nii nit tant que mosoo doo ko xam mais nante la mbalak maan la mi ngi may sonn rek mi ngi may sonn mais mënu ma xam ba léegi. <laughs> mais mais mais parce que moom daa jàpp ne tara nekkatu fi loolu la jàpp. waaw ah, mais dama ne ay morom am na ay morom yu ko doon yaakaar. yéen ñaar ñu tëj leen ci barrière yaag booy ñaar. li ci gën neex mooy fausse garde la fausse garde laa. droite ak droite. laa ilaaha illallaah ah saa yi man fausse garde fausse garde su may bërëg moom damay kontaan de. barke Cheikhul Tidiane sama xol day seetlu guy. droite yi. laa ilaaha illallaah fausse garde ba muy teg moom a intéressé bis bu ñu yàlla boole yàlla nañu yàlla boole ak jàmm rek waaw. Ah. kon mbaat yàlla boole. naa xeex daa ni de. man sama man sama ay mbiru bopp laay lijjanti man lijjanti bu kenn kontaan ci yow maa ngi lay ziar lu bari jaajëf waay